dinaa woo kilifa mu jéem maa defaral visa pour ma mën a dem. yaa ngi tudd tur. waaw dama ne danaa ko woo. pour mu mën maa defaral pour mu mën maa defaral visa ma dem. parce que bëgg naa ah gisoon naa vidéo bu mu doon defari visa ñëpp ko gis di. boo bu fekkee yow buggoo man bëgg naa fan yii di ñëw kay dinaa ko dinaa xool parce que maa ngi xool. maa ngi Sénégal ah, ma. man de bëgg naa dem te kilifa laa ci yaakaar. d'accord après nga contacter kilifa ci loolu. après jox ma numéro. yoruma ko. yoruma numéro kilifa am na koo dugal nga bëgg te ngaa dem sa dem rek bàyyi ma binda bu jógee ci président Diomaye Diakhar Faye nag mhm. bam jàkkaarloo wekk euh, journaliste yi dañuy ñëw nag ci président gëm sa bopp Bougane mhm. yaa ngi gis fan gaz bi ñu koy defal xam ne cinquante ans du expiré <laughs> Bougane daal daa gën a bëgg coow Bougane dimanche bii binta waaw na daal def euh, jàkkaarloo ak moom tamit ak ay ay njege ñaalem laa ko mën a tuddee xaw ma ñiy bokk gëm sa bopp jàkkaarloog tamit journaliste yi. Mhm. mais moom euh, dafa mel ni ñu baal ma ci kàddu gi ku défier kii di président Diomaye Diakhar fay ndax mi ngi koy xamal ni ko xam nga ci wàllum euh, wàllum euh, fonds politique bi. Mhm. président de la république moom mi ngi préciser ci samdi bi. Mhm. ne le nouveau régime n'a pas dans les caisses les fonds politiques. waaye kii di président gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany moom mi ngi xamle ni la rapport d'exécution budgétaire du premier trimestre 2024 est sur votre table je vous mets au défi te nee na sa 22 milliards qui ont été consommés où se trouve le reste. Mm-hmm. nee na la leen di laaj rest bi. Mm-hmm. te moom am na information yu wóor yoo xamante ne euh, cofu ko cofaanu ko lu ko leer la te teg na ko ci table ba pare nee na na kii di président. Jomaay Diakhar Faye waaye man dama mës a gis ko défi président nag. Bougane Gueye bi yéen Gueye ni nii ngeen amee fit. Bougane Bougane Gueye Dany Bougane Gueye Dany c'est un la sant. waa Gueye Dany maam góor Gueye sama sama sama sama Gueye ak Gueyam bokkul waa dafa am Gueye Massiré am Gueye Ñaay Gueye yi dafa bari. ak Gueye Ndioro Bassi. waa Gueye Ndioro Bassi bari na bari na Gueye yi dafa bari mais moom Gueyam ak sama Gueye. bokkul waaw moom gëyam moom gëyam bu tàng la waaw man tamit sama gëy gëy bu tàng la <laughs> mais Bougane Gueye Dany gëyam ak sama bos bokkul xam nga lu tax bokkul Bougane Gueye Dany man dama koy laaj ñaar moom Bougane Gueye Dany moo ne wër na six fois Sénégal <laughs> dama koy laaj six fois yi nga xamante ni wër na ko Sénégal te nguur gi toog waruñu six fois Sénégal lan la xoole ba nguur gi toog gañe Sénégal moom mi ko wër six fois gañewul na ma jox réponse na ma jox réponse ci loolu ba pare beneen bi ci des mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne moom Bougane Gueye Dany moo def ba président ba Bassirou may Diakhar fay ak euh, chef du gouvernement Ousmane Sonko ak accéder au pouvoir lan moo tax moom accédé wul accédé wul accédé wul au pouvoir ñaari question yooyu bu ko Bougane Gueye Dany leeralee rek man gëm naa ni Bougane su boobaa nag lépp lu mu waxati ma ne ko gongo man nit ki mënuloo wër six fois Sénégal te mënoo analyser politiquement lii xew ba tax nga toog di xaar deuxième tour ba deuxième tour jural la lii mu la jural lii lépp bàyyi la ca mbooy ma tey nga génn di contester nguur gi li mu liggéey ak li mu liggéeyul mais Bilia dañ ko koy nangul moom mu génn joxoñ baaraamu tuuma gouvernement bu Bassirou Diomaye Diakhar Faye il est un politicien politicien boo xamante ni candidat la woon ñu rëkkale ko ci ba ñuy xool lépp lu jëm ci wàllum parrainage beneen bi nga xamante ne ni moom moo ci des am na moo à diiram ci Sénégal rawatina mu fare ci langue politique gi mais chaque jour bu jot ma wax ko nit ki doo nekk un nihiliste baaxul su nit ki liggéeyee nga gis li mu liggéey applaudiral daal ne nit ki lii la liggéey lii la liggéeyul su boobaa nga daal di génn opposé mais ñoom li ñuy bañ mooy la chaise vide bëgguñu ko xam nañu buggaan li ko tax a jóg fonds ya nga xamante ne mu nga cay wax muy fonds politique bi baax na mu leeral baax na mu duut baaraamu tuuma fay metti parce que Ousmane Sonko nii la ko doon defee day génn avec des révélations daal ne dossier yaa ngi nii man maa ko yor mais léegi nag Bougane ngay Dany dañuy bëgg dossier yooyu noonu mu mettre ko à la disposition des Sénégalais fonds yi nga xamante ne nee na le président dépensé na ko à hauteur de vingt deux pour cent ñu dépensé ko ci ay nangami milliards mu wax ci fon spéciaux yi dañuy bëgg lépp mu génnee ko détaillé ñu ko moom Bougane Gueye Dany démb ci point de presse am bi t-shirt bi mu sol lan la représenté muy benn. ñaar Bougane Gueye dani dafa taxaw dal ci kaw ay panafricaniste muy ñi nga xamante ne ni moom moo di Mali entre autres dal ci seenu kaw Bougane na xam ne c'est un Africain c'est un Sénégalais gis nga nit ki loo xëcc mu dagg dafa fekk saxu ca tey moom mu taxaw woote anti système anti système boobu nag su fekkente ni Bougane gay dani daf koy incarner li mu war a def mooy fexe ba déndu Afrique ni ñuy booloo doon benn muy li ñu dénk la président Bassirou Diomaye Diakhar fay en tant que médiateur en tant que médiateur nga fexe ba déndu Afrique doon benn gis nga biliyaa xam nga kër lan moo koy tas ki koy tas kañ lay am doole day ñëw fekk famille ba kenn ku ci nekk jël sa cëggal guy daal di dem bu ko defee kii ñëw di tas dafay am doole pour tas mais bu ñëwee fekk famille bu suudewu mënu kaa tas je fais allusion à ce que Afrique ñu suudewu à ce que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye li ñu ko dénk en tant que médiateur mu dox ci diggante les pays du sayel yi nga xamante ne génn nañ muy Niger Burkina Mali entre autres pays yi nga xamante ne dem nañ ak seen cëggal guy mu fexe ba fédéré boolewaat loolu te Bougane ngay dani bu mu jéem a yàq loolu bu mu ñëwee ci discours boo xamante ne discours bu haine la entre Sénégal avec les pays duy Sahel bu mu ko indi parce que le ba Bassirou Diomaye Diakhar fay dañ ko dénk di ko ñaanal mission boobu mu réussir ko sinon ñi nga xamante ne nii c'est des puissants bis bu ñu ñëwee dañuy gën a mën a diviser pour mieux régner parce que seeni intérêt mu ngi Afrique bu ñu demee tey ba naan Burkina bu waree dugg Sénégal parce que ci espace CEDEAO la bokk dafay ñaan li nga xamante ne moom moo di visa yaa problème bu ñu demee ba Mali gee nga xamante ne lépp luy wàcc mu ngi wàcc ci suñu port bi camion entre euh, Sénégal Mali di yóbbu dafay doon problème ñu leen di ñaanloo lii di visa kon tey nañu fexe jàmm am jàmm googu noonu bu amee moom président ba euh, moom euh, Bougane Gueye Dany ndamam la parce que président wa moo dox jàmm googu ba mu am t-shirt bi mu sol rek dafa symboliser lu bari kon warta mën a taxaw di dénigrer kantaan nag ci fonds yii nii mu taxaw wax man damay xaar li muy wax mu indi ko avec des preuves yoo xamante ne nii c'est palpable et et gouvernement bi fi nekk Bougane Gueye Dany daf leen a défier nañu génn ñoom tamit indi ay leeral parce que nguur noonu la du ñu la tuumaal rek nga toog ci sa ruq dafay baax bis bu ñu dee génnaat ñu génn ak ay leeral yoo xamante ne ni lu palpable la fekkuma fi dara fekkuma fi dara ñun ñëpp jot nañ ay information comme quoi que le président Macky Sall ba mu fiy jóge ci lu tolloog 320 milliards mu ngi logé wu woon ci benn banque de la place nekkoon ay koppar kon loolu tamit dafay baax ñun ñu édifier ñu ci ñu xam lii Bougane Gueye Dany di wax ñoom nan lañ ciy indi comme réponse bi Hmm. Abdou Nguer eh, gis nga dimanche bi président gëm sa bopp borom eh, des médias mi ngi génn nag dal ci kaw eh, président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye na kii di président moom moo précisé woon ci samedi bi daal di wax le nouveau régime n'a pas trouvé dans les caisses les les caisses les fonds politiques waaye kii di Bougane Gueye nag muy président gëm sa bopp moom daa génn défier président bi nee na le rapport d'exécution budgétaire du premier trimestre 2024 est sur au défi ba pare ne ko sa 22 milliards qui ont été consommés où se trouve le reste daa défier ko pare laaj ko décide bi. Ah, xam nga.